yaraw ci mboolem lu yaay Alaaji Fallu sa soo leen bëgg a xibaar yu wóor te gaaw ko koog wér gaaw leen gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg a tey également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu mu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seeni xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46 wala 77 698 96 enquêteurs ya teg nañu loxo ki ñu njort ni moo faat bakkanu Kiné Gaye du kenn ku dul collègue bi nga xamante ni daf doon faral di ñëw di encaisser xaalis bi chaque semaine ne nag daf ko doon tuumaal fan yi yëpp ni dafay faral di sàcc xaalis ba bi ci mujj mooy cinq cent mille francs bi mu ko doon tuumaal waa ji nag bi ñu ko tegee loxo ci bëccëgu tey gi gannaaw ba mu jàkkaarloog enquêteurs yi nangu na ni démb dem na fa diggante dix-huit heures jàpp dix-neuf nangu na également ni moo fa gaare moto ba waaye nag waa ji li ko gën a dugal du lenn lu dul deret ja tax sa yére ya gajji gajje yi gajji gajji ya nekk sa kanam ga moo ko dugal loola waral ñu daal di koy teg loxo ndax ñu bari dañ doon njort ni ay agresseur la yoo yaay fa dugg waa ji nag jamono ji ma wax ak yéen ma nga ca loxoy yoon enquêteurs yi ña ngay continuer di def seen liggéey waaye jàpp leen rek ni suspect principalu euh, crime bi nga xamante ni moo am démb fële ca euh, pikin